président Macky Sall mi ci safara la doju dee ah bu ñu sukkandikoo ci le pays au quotidien mu ne la sabab lu ñu mel nag mooy dund gi nga xam ne tar na ba maara day taali waaye itam coow li nga xam ne moo am ci biir Benno Bokk Yaakaar waaye itam coow li nga xam ne cantakun yi kon indi nañ ko fi barki dee mboo njaay cantakun yooyu yee coow li nga xam ne kon indi nañ ko fi barki dee mboo njaay la mu jural kon transporteur yi baaxul neexul lu ci mel ni Dakar dem dikk tamit bii su tataay ñàkk nañ lu ci tolloog wala lu ko ëpp sax ñaari téeméer ci ay millions bokk ca waa naqarlu na kon jëfuk vandalisme yi nga xam ni kon moom la canta ko di def ci wàllum wuyu commissaire Alioune Ndiaye ci la Soleil yéene kaay nee na police bi daal jël na kon ay matukaayam ba nga xam ne wàllum pëccaxoo dootu fi amati Walf Grand Place ne cantaku ni day la ñu yàq nañu yàqal yëpp nguur gi kon dana leen remboursé waa Konga conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement sàkku nañu ci nguurug Sénégal gi mu def daal kémtu lay kàttanam ba ñi nga xam ni kon ay yàqkat lañ ñu yëngu ca yoon rek wàllub loi ak règlement jël ay matukaay yoo xam ne ne def lu ne wàng te dara du la ca fekk kon na fi dak wàllum impunité ñu toppe leen kon ay criminel yëkkati ay daan yu saf saf lal ko ci ndoddug ñi nga xam ne kon ñoo def giraawaali yi lée waa pongaat yemuñ ca ndaxte sàkku nañ ci gouvernement Macky Sall bii ñu daal di kon dem wëri nag ñi nga xam ne ñoo santaane kon mbir mu ni mel te vandal yi nga xam ne kon ñoom ñoo planifié lu ni mel kon togg lépp ñu teg leen loxo jébbal leen kon ëttu attekat nga xam ne kon ñoo leen war a atte enquête yéen a lu fi lu bees de parce ni yéen a ngi fàttaliku ci élection présidentielle bu songoon nañu journaliste yi nga xam ne kon ñoo àndoon ak Idrissa Seck ma doon defanteeg Abdoulaye Wade ci kanamu nag impunité defoon lu ne waa nga te dara fekku leen ca loolu tey moo indiwaat lii élection présidentielle bu ñu taxawal fi ab société di fi liggéey ay gourdin di ay mbol ay kuur loolee moo continuer ba léegi ni leen gouvernement bii nga xam ne nag eh, tekki wuñu dara di tiital ab jikkob wëyu di jëf ay mbirum vandalisme daal direct info ne ak seen yëngu-yëngal gi yëpp waaw Cheikh Béthio Thioune day attekat bi nee na du génn ci kaso bi i liberté provisoire di bàyyi naka ndi ko bi kon bañ na ma tëdd ca suuf ndaw yi nga xam ne nag ñoo nekk ci APR ci Walf Grand Place woon nañu kon bay Ndiaye ministre de l'intérieur ngir daal ñëpp daal di wéyee di respecté nag maanaam loi buñ ci ànd ak faiblesse nañu defanteeg jëfu wuyu yi le ay acte de vandalisme yoo xam ne daa jekkul ci Sénégal dara jekkul tamit kon ci kilifa diine yi le kilifa diine gii di bàyyi Mamoun Niass ci réew mi quotidien woo na ko nii kon ñu ànd ak dal xamal na leen tamit ne leen Cheikh Béthio Thioune santu leen kon wàllu fitna déedéet Baara Ndiaye bu APR ci tribune yéene kaay mere lool ñi nga xam ne kon ñoo ànd ak président Benno Bokk Yaakaar allié yi waaw waaw Baara Ndiaye ne xoolal ma ci jamono ji nga xam ne kon nguur gee ngi dund ay jafe ñu koy song di ko xaxar fu waxuñu dara parti Ousmane Tanor réew mu bu Idrissa Seck waxuñu dara AFP bu Moustapha Niass waxuñu dara wanewuñ daal maanaam ab solidarité ne danoo ànd ak président Bara Ndiaye ne ñoom alliés yi nag bu ñu demee daal ba sentiratuñ maanaam seen bopp ne ñoom ñoo ànd ak nguur gii nañoo assumer lépp ba a daal di yëngu ci waaf lu yëngu ñu waaf maanaam sëgg daal bañ caa wax waaw non ci jamono joo xam ne kon day miti lool suñu mënulee jàppale président te ànd ak président nañu baax nañu génn dem bu leen leeree ne mënuñoo défendre kon nguur gii nga nguur gi ñoom daal bu ñuy wax nañ wax ak seen bopp moo gën ñu nekk fi kon di tuumaal ñeneen ñi ñun waa PDS jegewuñ ca laalewuñ ca ci coow li nga xam ne kon moo fi am ci àjjuma jeeg altine jilee Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ci tribune yéene kaay nee na Touba ci boppam ñoo war a génn kon ci seen pataaral gi nga xam ne kon moom la ñu waa Touba ñoo war a wax parce que Cheikh Béthio mi le dañu koo bàyyi ak ëllëgëm rek kenn jàppale ko te Cheikh Béthio nag soxla la lool solidarité njàppandaluk askanu murit gépp parce que Cheikh Béthio moom mais ci askanu la bokk waaw ab ayub di liberté provisoire enquête yéen kay ne Cheikh Béthio bii mooy ñaareelu yoon ñu koy lankal kon liberté provisoire boobee di bàyyib na ba Allahu akbar aji mbergan kanute jiite jigéenu bennoo bokk yaakaar ci tribune yéen nee na nguur gi daal wàllu wile da cee war a dem kon ba sës yëkkati tamit ay daan lal ko ci ndoddog ñi nga xam ne ñoo def kon ay giraawaal yi waa m patriotique ci le pays au quotidien ne danañu ne moom ne ñooñee naan M23 patriotique la ñu ne man xam naa leen bu baax te ñoom xam nañu ma am na loo xam ni xew na jarul nag man na fi di ko wakkoon ci mbedd mi non Mor Ngom ne nit ñi nee nañ xaalis amatul dëgg la xaalis bu salte bi daan lambar lambari ci mbedd mi kay moo amatul ba ñëpp di ca jot lu jëm nag ci wàllu dundinu askan wi ñin moom danañu ca jublu yéene kaa gi ne jafe-jafe bi Macky 2012 amoon ah gars yi daje nañ de ba kilifay kon seen kolore Ibrahima Sall dem naa ca làmb ja tribune yéene kaay ne lig Nicolay kay attekat def na ko ko suñu làmb ne ma nga daal dafa set ba mel ni glace terminé yéene ne moo tax Luc Nicolaï lank na daara tëdd ca ne kenn bu mu ko may liberté provisoire di bàyyi na gëndu kaso moo ko gënal ngir na lépp leer lépp dana leer fan ak benn cooru octobre fa fay mi ànd ak Luc Nicolaï ci suñu làmb ne le pays au quotidien moom dama koy porte plainte parce que nañ ma bindal keroog fa fay en sursis ca une ba boo tijjee ca biir journal non lig Nicolas ci wàllub làmb kese laa doon liggéey ak moom laaleewu ma ca dara jegeewu ma ca dara man Pape Faye ku xam-xam ne ku kilin la ku set la cay làmb ja cay football ba Sud Quotidien ne koto aw dàq nañu ko tribune yéene kaay ne dàq nañu ko waaye fédération banque fi birima ci tribune yéene kaay ne luy njiit ñoom ñëpp la tous coupable waaw waaw bu dee fédération bi ci boppam daal télé mënuñoo wutal daal ko xarañ koo xam ne mën naa yor gaynde yi le moom it war a dem moom fédération bi <laughs> cay nu nit di def baam yàppam xarum tabaski Abdoulaye Mouhamadou Amadou ak Maymuna restaurant la yore woon ca Pikine ah restaurant la yore woon yóbbu nañ leen ca polisu Pikine de lu xew ñoom daal dañoo tax ci ngaayum yàpp moo xam ni kon setul marte itaali ñoom ñii yàpp daal la ñu doon jaay jox nit ñi ñuy lekk nekkate yàpp ñu doon jaay yàpp mbaam sëf la i la ilaha illallah la ilaha illallah ak yàpp fas mu yéen maa la ko wax 2006 ba léegi ni le gaa ñaa ngi koy jëfandikoo di ko jaay nit ñi ñu koy lekk allahu akbar yàpp mbaam deeg yàpp fas ba lañ doon jël kon jaxase yooyee allahu akbar laa ilaha illa allah 2006 juróom benni at a ngi la ñuy yëngu ay ñii rey nañuy nit ña service départementaux wàllum élevage ah ak gars yu commissaire seen yu pikin ngoo gee ñoo leen feeñal laa <laughs> ilaha illallah nit ñe daala nga jàppoon ca yàpp mbaam mbaak yàpp fas ba rek jaxase ko yàpp nag wax di ko jëfandikoo bi ca lekk laa ilaha illallah man day dëkk bi le xaw ma nu nit di def bëri ci fi yàpp mbaam ak fas seeñu baa ma nar a jaaxal man seeñu ba yax ya nan lañ koy seeñoo xanaa di tëjëg tijji di tëjëg tijji di tëjëg tijji Cathy Travel seen agence pour le pèlerinage ak High Sense électroménager